ouvrier yi. ouvrier yi ñu ngi leen di xaw a rey sa waay. ah bon benn waaye leen di woon ne leen entrepreneur laa. ndax dama damay commandé vingt quatre portes dama am chantier boo xam ne chantier bu mag la. ndax nga mën nga ma defaral vingt quatre portes. ban bu ma def nii. waa déglu. non eh, eh, eh, non non non non non non non non mais ban histoire paa bi ak doom ji ci biir famille yooyu mais ban bu ma def nii. paa ban tey ajuma la paa bi. paa non non paa bi non non paa ancien militaire beeg yooyu. mais kooku ñu ngi koy réglé. gaa yi ñu ngi ñu ngi dox ñu ngi dox ci suuf mais de toute façon kër googu. moom waa kër gi dañuy génn de doom pa waa booy bi doon wax ak yaay ji ak doom ji benn xale rek moo des ñëpp génn nañ benn xale moo fa des day def bac. benn xale moo fa def te day def bag kon tey ci menuisier yi. kii menuisier ñu ngi leen di xaw a daa déglu li leen di def. nañ jëm ayca. taal sama oto dem sa di dem si chantier ba mu oowaat man ne ma ndax euh, ni néant bi am na kitis. waaw ma ne ko nag man amaguma kitis. waaw mu ne ma non il faut que mu àndoo kitis parce que bu amulee kitis duñ la mën a jox marché bi waaw ma ne ko non fekkee ne kitis moom yomb na rek ñu demaat ñu dem impôt et domaine ñu balaa mi dee jot ñu defaral la ko waaw boo taxawee rek dina la ko defaral ma ne ko loolu amul problème bi may retourner di dem euh, impôt et domaine mu oo ma si diggante bi ne ma am na benn waay bu ma lay booleel foofu sama xarit la boo nekkoon njaay entrepreneur rek moom dina taxaw sikki ci bi mu defar la ko rapidement. waaw xaaral ma jox la numéro nga oo ko. bon ma joxee numéro bi euh, ma ma yàkkamti euh, euh, pour oo ko far yàlla moom waa ji ma booleel oo ma ci sama numéro. ma sawa na nga def yow la menuisier bi ma ne ko waaw mu ne ma Ndiaye yow la ma booleel ma ne ko waaw mu ne ba dama nekk tribunal nii si kaw du ma kii du mën a saamin toll nii dama xaw a occupé bu fekkee da yàkkamti. ah damay. nga may envoyé xaalis bi ma dugalal la ko ma nga dugalal ma ko orange money. code euh, ma defaral la affaire bi rapidement balaa deux heures balaa midi di nga ko. man dama yàkkamti woon marché bi affaire yooyu waaye ni ma waxee ne euh, midi ñoom dañuy euh, réunion te bala ñoo pare war naa andi document yëpp. ma ne ko waaw léegi amul problème léegi baay ma oo Ndiaye. si la oowaat waa ji ma boole woon ax moom ma oowaat ko ne ko waa ji de nee na mu ngi tribunal. mu ne ma mais affaire bi il faut que ñu jot ko balaa midi moom affaire boobu parce que. Euh, euh, marché bi moom mu nekk léegi nu ñuy def mu ne waxal ak waa ji rek bu la ko mënee defal balaa midi amul problème léegi bàyyi ma envoyé la xaalis bi euh, si laa ko envoyé quarante mille parce que dana ma quarante deux mille ma envoyé ko quarante deux mille astafirullah ma envoyé quarante ba pare mu oo ma ne ma jot naa xaalis bi waaw léegi oowal Ndiaye nga war ne ko dinaa defar affaire bi balaa midi si laa oowaat Ndiaye ne ko non waa ji envoyé naa xaalis bi mu ne ma waa ok amul problème waaw léegi euh, ban nee na yàlla defal ma ne ko ah non nee na euh, kii ban kitis la defal ma ne ko no kitis euh, rek laa ko wax ah mu ne ma non da nga koy oo defal la kitis simple parce que duñ la taxé quoi. waaw li ñu la taxé bariwul te marché bi duñ duñ duñ duñ si dara si marché affaire yooyu ma ne ko non waxuma ko woon loolu mu ne ma oowaat ma oowaat waa ji ne ko nag nee na kitis bi ngay defar dafa doon kitis simple mu ne ma non bu simple bi soixante douze mille lañ koy defaree waaw ma ne ko ah waaw mais. nu muy demee noonu mu ne ma ah euh, comme envoyé woon ma quarante deux mille da nga ci tegaat trente mille duggaat si orange mu ne ma envoyé waat ko trente mille franc waaw après si laa ko oo naka ndax xaalis bi ñëw na moom ne ma waa ñëw na bi ma demee impôt domaine fa laa toog ba quinze waaw loolu bi quinze heures nag laay na xaaral man ñii comme oowuñu ma ma oo leen waaw waaw si laay rendre compte nag si la bi ne ma oowee ñaari ñaari numéro yi ma yi ma oowee yëpp bu ma si oote rek mu mu tëj jotuma leen ba 16 heures fa laa toog expliqué gars yi nekk foofu gars yi na ma gars yi jaar sa kaw def nañ ko fi ay ouvrier yu baree baree baree bare waaw te loolu nag ndoy baan wax dëgg yàlla li ma gars yi def nii dinañ ko def ñeneen ak ñeneen te wax yàlla ah boo si jógulee du baax de waa ji mu ñuy bëgg a rey de waaw te ouvrier nag la si moom day wax ne moom entrepreneur la bu ñëwee sa ouvrier boo xamante ne dafa bëgg a marché te amul ni ne yaa noonu lay defaa yow jël sa xaalis Euh, dafay utiliser ay pièces d'identité yoo xamante ne daf koy for du ay pièces am daf koy for wala mu jël carte boo xamante ne ki ka moom gaañu na nekkatul si àdduna bi. waaw pièces yooyu lay jël di ko utiliser pour récupérer ji xaalis yi si euh, Orange ne yi. Euh, ñu ngi lay ñaan rek nga taxaw si dénoncé ko wax ko bañ ouvrier yi nga xam ne ni ñu ngi koy déglu di la déglu saa yu ne bàyyi si xel ba bu leen nit oowee ñu xam ne. du buñ buñ envoyé kenn xaalis koo xam ne gisuñu ko waaw ku la wax ne ku la oo wax la ne la andil ay pièces wala envoyé nit xaalis bu buñ ko def waaw nan bàyyi ba gis nit ki ah wala ñu bàyyi ba am lu leer. waaw dafa am sama beneen euh, xarit boo xamante ne waay yi nga xam ne même waay yi nga xam ne moom ma def loolu moom daf ko ko def waaw tey jii leen ko indi sama atelier sax. pour mu expliquer carrément li ko waa ji def même chose ak li ma def waa ji def waa ji mu ngi rey ouvrier yi billaahi ndoy baan waa ji mu ngi mu ngi dajji ouvrier yi quatre-vingt mille cent mille soixante-quinze mille lay jël si yéen lay jël si ñun waaw ay ay ay këyit la lay defar loo ji booy laax benn waay waa jooju na ngay envoyé xaalis bi doo si sax bàyyi xel ah ñun de bëgg nañ ku ñuy dimbali nag waa ji dalee ne la moom entrepreneur la wala man méridien laay liggéey bon dama soxla ay lal yu bëri wala ay porte yu bëri boîte bi moo koy moo ko soxla daal laaj la ndax am nga NINEA am nga registre de commerce boo ko amee nag mu ne la léegi defal numéro defal sa devis si numéro registre de commerce nga ñëw léegi léegi ñu jox la xaalis avance nga liggéey léegi boo defaree sa devis bi pour andi ko mu ne la léew bon nga boolewaale ko si cutis à euh, export import day yow loolu boo amulee rek si loolu la lay jaarale comme quoi que ne ne am naa benn frère bi nekk impôt et domaine mooy joojo Jojo Matar Sall moom benn gayan la boo xamante ne vite fait sama gayan la quoi moom loolu yàgg naa li jaax moom jarul ngee déplacé envoyé sa filiation nga envoyé ma Orange Money moom donc balaa ngay ñëw 15 heures ma jox la rendez comme ça ñu jox la sa cutis à nene à de commerce mais ñun nag woo dëgg yàlla nag biñ ma ko waxee dama ñëw sama copain la Alsan man tabaski la ma ko def quoi juste à veille tabaski bi la ma ko defee c'est à quatre vingt sama quatre vingt cinq quatre vingt cinq mille francs la yóbbu. mooy ciblé ay menuisier rek lay ciblé. xalaas. amul yërmande de ouvrier yi ak coono yi ñuy daj. Hmm? mais ñoom it war nañoo yeewu de tamit. mais mais ban lii nii teg teg jàlloon na fi benn menuisier métallique. waaw même waañ noonu la ko def apix la ko yóbbu. waaw xaar loo ko fa ba heures. Mhm. mais c'est-à-dire am na loo xam ne yow nit koo xam ne mosuloo koo gis day jékki-jékki woo la sa numéro mën na koy def. moo lay woo jox la beneen numéro. wala ñaari copains yu ànd. mais ni ñu def il faut ñu yow yow koo mosul gis xamuloo ko mu woo la damay commandé nangam. man damaa def ni xaalis wala ay valeur vingt quatre nga ci ci. indi avance ba pare kay. ah waaw